yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak juróom-ñett njàngaleem yeesu nañu bamtu nettali yi weesu benn lan la nit ñi yeesu faj niroo ñoom ñëpp gëmoon nañu ne yéesu mën na leen a faj ñaar lan la njiiti diine yi xalaatoon ci yeesu wóoluwuñu ko woon ñett fan la yeesu jële doole yi faj ci yàlla ñeent ndax yeesu amoon na sañ-sañu baale bakkar waaw mooy ki yàlla dige ne dina ñëw ngir jot sunuy bàkkaar mbind mu sell mi nee na ci Macë saar juróom aaya fukk juróom ñaar ba aaya fukk juróom ñeent bu leen defe ne ñëw naa ngir dind yoonu Musaa ak wax yonent yi ñëwuma ngir dindi leen waaye ngir ñu am ci man ndaxte ci dëgg maa ngi leen koy wax li fekk asamaan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 noonu kenn ci ñoom ka nekk xutbakat fexe ko fiir mu laaj ko kilifa gi ban ndigal moo gën a màgg ci yoonu Musaa Yeesu tontu ko ne nanga nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noona la mel nanga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ñaari ndigal yooyu tënk nañu yoonu Musaa wépp moom ak waxi yonent yi bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi njàngaleem yeesu nettali bi mu ngi aju ci njàngaleem yéesu yéesu jàngal na nit ñi ci mbirum nguuru yàlla na leen ci tuub ngëm ak jaamu yàlla benn bés am mbooloom bu bare ñëw ci moom ngir déglu ko mu yéeg ci aw tund toog di leen jàngal mu jàngal leen ci mbirum ni yàlla di barkelee ñi jub mu wax leen ne ñëwul ngir teggi yoonu yàlla wi waaye ñëw na ngir matal ko mu ne leen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 te muy tawal ñi jub ak ñi jubadi yéesu ne leen itam jaar leen ci bunt bu xat bi ndax bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ciy jaar bare waaye bunt dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul mu artu leen ci ñuy woowee seen bopp yonent di ngeen leen xàmmee ci seeni jëf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 dinaa jolil ay léeb di jukki ci démb léebu yeesu li muy firi mu ngi jëm ci yàlla ak ci yoonu yàlla ñi bëggul woon dégg daaw ñu dégg léeb yi waaye ñi bëggoon a dégg daan nañu xam li ñuy tekki yàlla ñi bëgg a xam dëgg gi rek lay leeralal ay kàddoom yeesu léeb na ne déglu leen ab baykat dafa bëggoon ji pepam bi muy ji ay pep rot ci yoon bi picc yi ñëw for ko ay pepp itam rot fu bare doj ñu sax waaye nes tuuti ñu dee ndax naaj wu tàng ak ñàkk ndox yeneen pepp rot ci ñax mi waaye naka la saxe ñax mi tànc ko mu dee des ci pepp mi rot ci suuf su baax mujj sakkan ba lii mat fanweeri yoon la mu jiwoon lee juróom benn fuk la la téeméeri yoon gannaaw loolu yeesu firi léeb bi baykat bi may wax mooy ku indil nit ñi kàddug yàlla di ko jéem a ji ci seen xol yoon wi ay pepp rot mooy boroom xol yu dëgër yiy déglu kàddug yàlla foofu la seytaan di ñëwe fexe ñu fàtte ko doj yi ñoo ñi déglu kàddu gi ak mbégte waaye seeni reen mënuñu sore ci doj yi bu ñu leen fitnaalee walla ñu nettu leen ñu génn ci ñax mi mooy ki déglu kàddu gi nangu ko waaye bëgg-bëgg àddina tànc kàddu gi ba du mën a màgg ci xolam suuf su baax si moo ñi seen xol nangu kàddu yàlla di ko dégg te koy jëfe ba mu mat fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn ndax yeesu dafa ñëw ngir teggi fukki ndigali yàlla yi déedéet wax nanu nu topp leen ñaar lu tax yàlla jox nu fukki ndigal yi ndaxte bëgg na nu xam ne moom dafa jub te bëgg na nu jub itam bëgg na nu xam itam ne ñu defal suñu bopp dara ba mat ñett ban ndigal la Yeesu wax ne moo gën a màgg ci ndigal yi ak ban moo ci topp Yeesu nee na na bëgg yàlla sa boroom ak sa xol ak sa bakkan bépp ak sa xel loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noona la mel na bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ñeent lan la yeesu wax ci bunt bi yóbbu nit ca asamaan ca dund ga ba faw yéesu wax na ne waaye bunt dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñu ko gis barewul juróom lan la yeesu wax ci mbirum ñiy woowe seen bopp yonent yeesu nee na mënees na leen xàmmee ci seeni jëf juróom benn su nit déggee kàddug yàlla te topp ko kooku naka la mel kooku mu ngi mel ni nit ku tabax këram ciw doj bu taw bi soobee kër gi du màbb juróom ñaar ci lan la yéesu di lépp ci liy dëgg ci wàllu yàlla ak yoonam la yeesu di jàngale ci ay leb juróom-ñett lu tax yeesu di léeb yeesu léeb na ngir ñi bëgg a dégg dégg te ñi bëggul a dégg bañ a dégg juróom ci léebu baykat bi jiw bu baax wi lan la tekki kàddug yàlla la tekki fuk lan la suuf si ci yoon wi tekki mu ngi tekki ki xolam dëgër mu déglu kaddu yàlla waaye fàtte ko fukk ak benn lan la doji tekki mu ngi tekki ki xolam dëgër mu déglu kàddug yàlla bég ci waaye suñu ko fitnaalee mu génn ci fukk ak ñaar lan la ñax mi tekki mu ngi tekki ki nangu kàddu gi waaye bëgg-bëgg àddina jiital ko ba kàddu gi du mën a màgg ci xolam fukk ak lan la suuf su baas yi tekki mu ngi tekki ki déglu kàddu gi gëm ko jëfe ko ba meññi doom yu bare fukk ak ñeent lu ngeen yaakaar ne moo tax yéesu wax nettali bii dafay wone ne du ñëppay topp yeesu wala gëm kàddu yàlla yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla xam na lépp yéesu jàngal na nit ñi ak sañ ak xam-xam gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla wàcce na taw ci ñi jub ak ci ñi jubadi yàlla yónni na nit ngir yëgle kàddoom ci àddina sépp yàlla bëggul bàkkaar yàlla nanguwul kenn dugg ci àjjana lu dul ki amul bàkkaar yàlla dafa jub yéesu nee na du seeni jëf rekk moo am solo waaye seeni xalaat itam képp ku wut yàlla ak xol bu set yàlla dina ko feeñu beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yeesu defee ay kéemaan yu bare